bàyyi kon ñu dem ci la solution mi ngi en face Walfadjri wala balaa loolu sax KP du transfert bi gënte wóor ay mot de passe neexul traake li nga xam ne itamit moom mooy yónneegam jot itam duñ la ci teg benn 15. mi ngi noonu KP du ñu boloke xaalisu jàmbur du ñu ŋax nga duy ba mu fees ñu ñepp ni la gisuñu ko fenn dégguñu ko fenn ba waxee ñun la dañu wax ne ñeb leen ko yooyu kaapee dugg sa euh, xalaatutu ko kon mbooleem koo xamante ni yaa ngi laasi appel laaseel appel mu jëm si sa doomu réew yéen a ko def moo tax dugal leen du nga dugal ñu bañ dugal ba sa biir ñu ñepp ni gisuñu dégguñu ah, kon nag ku bañ lool yi da ngay dem si si nga xamante ni sam réew la sa doomu réew mi moomee ko nga yónnee si sab xaalis jot si sab xaalis si lu leer nañ kaapee doomu réew mee ko moom kon daw leen ngeen wuti ko mi ngi noonu KP yi kon doomi réew mee ko moom daw leen ngeen dooleel ko te bëgg seen bopp la solution mi ngi en face Walfadjri am nañu ndoxum siti am nañu ndoxum siti mu baax mu lay faj ba nga wér si carte na suñu borom ñoo ngi jàkkaarloog Walfadjri 8h ba 17h boo ñëwee yéegal ci kaw boo munta ñëw nga yónnee ñu yónnee la boo jotee ñu wax la ni ñu koy defee si carte na yàlla bu dee yaa ngi si raison yet danañ la ko yónnee si oto yi soo orel wala boog boo maraîcher fu mu mën a doon da nga si jot si carte na yàlla si 14 raison yi ak 46 départements yi amuñu fenn représentant fii si Sénégal Walfadjri nekk bitim réew nag numéro yaa ngi ni fang képp koo xamante yaa ngi bitim réew te bëgg ci jurut ngay woote fii sax si Sénégal di laaj yi ni si fànn ñoo ñii nga xamante ni ñoom nga fa gis seen numéro ñun ñoo leen yabal suñuy garab la ñu yor am na ñu hémorroïde bu baax bu lay faj ba nga wér si karatunu yàlla estomac bu baax a baax am na fii si biir solution asma asma it am na fi balotement balotement it bu baax a baax am na fi raay mu sedd guy foo yaakaar ni bokk ci njëkkee ko <laughs> garab xale wala mag buy sawtu tey si loo yëg dem saw ñëw tëdd <laughs> li nga xam ne moom mooy eh, xar tànk. xar tànk jëlal defaat ci mu melaat na meloon ci kàttanu yàlla. jabet. jabet it am na fii si bitigu solution. néew kàttan. bàcc mu leer ñi ba bët set wécc bu la neexee sax ñu lay fëgg naa la jógal xëy nga ne xaaral ma xool seetali <laughs> donte ginnaaw ba nga bàccee si guddi gi ñaari yoon wala ñett boo xëyee si suba gi bala ngaa xëy jamono jooju ñu toog di la xaar mën ngaa bàccaat ndax eh, effet effet bi nga xamante ni desee na ko nga seetali doog a dem xëy si kàttanu sunu borom Assane yow loolu fan la nit ki di wéree. wér na day gën a wér sax. ñett yoon fu mu toog day am doole. Assane loolu baaxul de. baax la def. ñeenti yoon xanaa déggoo euh, imaam ba nga xamante ni mu ngi ko doon wax nee na ki la dàq sëy moo la gën a wér. Hmm. imaam yow jotoo audio bi. ab imaam moo ko vidéo bi waaw tudd imaam lu damaa fàtte tur wi te bëgguma tànd. mais hmm. wax na nee na ki dàq sëy moo gën a wér ki dàq sëy nag mënut a dàq sëy te ñëwut bitigu solution. d'accord waaw autoroute. bu fekkee lu war a yokk la si kàttanu yàlla dana yokk mais bu fekkee ne du lu war a yokk loo xam ne leer na lii caaxaan yokku ko leer na ni nii la bindoo nga ñëw kat daal di koy sukkandiku fii def ba mu jeex nga naan affaire bi kat xoolaat naa ko waaye yokkut loolu yi boo ñëwee fii du yokk tey li nga xamante ni yaa ngi ko yor di ko di ko xool bët bu set ak garab sax boo ko sa sambatee si kër di ko roosee da nga yaakaar ni màggu nit a ñëw ne ah sa garab gi gaaw nag màggat yi pour yow màggut fekk na ma ngay màgg di dem waaye bët bu set nga jël di roose jàkkaarloog moom da jàpp ni màggul waaye bis boo demee ba am combat ba jël bàcc mu leer bi da xam ne màgg am na màggate bu baax a baax ndax man ngaa dégg kukk te daawu ko dégg booy Kaza nee na say soxna yërëm na leen bàyyi Assane Mesere ñu dem ci li nga xam ni moom mooy euh, maanaam garab gi maye karaw karaw guy damm di lu ruus leel ak yeneen yu mel am nañ garab gu ci gaaw yow mi nga ak kër suba teel taal bi di xeeñ karaw ndax jigéen ñi nga xamante ni seen karaw yi day roos dañ koy lem dem sa taal ba def ko ca muy xeeñ loolu yi dakk na karaw duutu roos si ab dorog duutu ruus si wenn bërti bërtil ba sonn bëreel ba sonn gajamal ba sonn duutu damm duutu ruus ndax sunu karaw gi fépp foo xamante ni bëgg nga fa karaw gu liis gu gudd diw ko fa bañul fenn fu war a am karaw jërëjëf